木仙台

solo bi euh, doon ndaw ñi euh, jërëjëf maa ngi maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant ci invitation bi nga ma jëral euh, di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi lay déglu wala di ñu seetaan di nuyu waa Sénégal di nuyu. wa dina di nuyu wa Sénégal yi nga xamni ñu ngi nekk à l'étranger euh di wax ni euh, kontaan nañ ci ñew bi té dañuy ñaan yalla luñ fi wax rek mu nekk njëriñ pour euh, askan wi. alors maître Massokhna soxna kan lutax déjà nga tamu nekk avocat. tamu nekk avocat moy euh euh bagn injustice bagn injustice bëgg droit d'accord mais bañ surtout injustice euh, bi ma gën a nekk ndaw suma xarit yëpp Zoro lañ ma daan wooyee parce que il disait que j'étais un justicier donc euh, loolu moo ma dugal ci métier avocat avant métier avocat nag am na yeneen métier yu ma doon euh, yu ma doon def. ñu ñëw foofu est-ce que da nga mës a dund ay injustice yu particulière yu tax xëy na nga ne man il faut ma nekk avocat.

Euh, yaakaar ni kenn mu mënul ko dara donc ñooñu dafa laaj ñu taxaw en face euh, des fois état la aussi état aussi dinay teg nit ñi ay injustice yoo xam ni euh, ñu bare dañuy defee ni mënuñ ci dara parce que état fa bari doole alors que mën nañ ci dara donc il faut mu am ñu gëm ni mën nañu taxaw ñooñu ñoo xam ni dañ ci kii ñun nag dañu gëm loolu que ni état euh, personne euh, morale mais euh, personne le bo xamni bi droit dafa wara teggu ci kawam donc bu ñu gisee koo xam ki état daf ko togn mu wóor ni état daf ko tooñ danañ ko jema taxaw bu fekke ni def ci liñ ci mën daal. mais amul ben événement bu particulier bu le motiver deug deug pour nga nekk avocat waaw daan naa gis euh, bima ma nek ndaw do na gis ci métier avocat bi des grands avocats ñu xamni comme Jean euh, Rougnom Valdiodio Ndiaye Jean Lamine Gueye genre euh, yeneen kii Babacar Sey, euh ñu mel non Moustapha Seck donc ñooñu Fadilou Fadilou Job, ak ñu mel noonu ñoo xam ni da nga daan lan gis ni ñu mel nga bëgg mel ni ñoom donc loolu mooy inspiré yenn vocation yi. d'accord wax nga ni bala ngay doon avocat am na yeneen métier yoo def. waaw avant may nekk avocat euh, nekkoon naa assureur mais avant may nekkoon assureur aussi euh, maa ngi nekkoon euh, def naa comptabilité def comptabilité nekkoon naa comptable a une société d'assurance Moudi ma jàng assurance euh, ba am ci diplôme d'assureur. assureur euh, dirige une société d'assurance bu avant de démissionner après 15 ans pour dem dans le barreau Je suis un peu ngi a parce que je euh, 42 ans Donc, donc je un ci yàgg assureur ou avocat.

Euh, ku tudd Paul Sukaay woo ma mom ni Café Sukai. woo ni ma boole naa la suma ben xarit bu comptable euh, muy euh, compagnie La Foncière monsieur Kero mo boole ma donc ma dem fa mu jël ma ma comptable mais ni may traité dossier assurance yi ma am envie jang assurance ma inscrire école d'assurance donc Defna école nationale d'assurance bu Paris Defna école polytechnique aussi qui l'a amee benn lijaasa après euh, Manek assureur conseil maanaam Nek ci suma liggéeyu bopp nekk assureur conseil ba mu jigi ma taseeg nit ku baax euh, Jules ñaan xam euh, principal assureur ci biir tubaab bi moo doon nit ku ñuul d'ailleurs tubaab bi dañ dan wax ni sur la côte ouest africaine euh, le seul assureur

droit laa doon jàng parce que dama mas a bëgg droit parce que booy jàng assurance di nga jàngale droit di nga jàng droit maritime di nga jàng euh, droit civil et cetera accident yeeg yooyu et cetera donc ma bugg droit dama daan liggéey ba 18 heures ma dem université def travaux dirigés 18 heures ba 20 su ma jógee foofu ñëw suma kër. Ah, boobu maa ngi am ben studio bo xam bi bii bu ma ñëwee suma kër suma wa kër man dama daan ñëw rek euh ah, reer ah, seetaan journal télévisé dem tëju ci suma wañ ci suma table wañ la doon liggéey ba minuit une heure du matin pendant ce temps nit ñaa ngi toog suma salon di seetaan film wala j'étais en famille j'étais marié avec des enfants donc man dama doon liggéey di jàng en même temps metti woon na mais c'était le prix à payer. Voilà. Donc, nous am toujours mention à l'université. Ah Pendant ce temps, les jeunes étudiants yo xamni dans la même classe, genre ñom de Diallo, genre ñom Philippe Senghor à l'époque, ils ont été wax mais grand, yow nak ngay def pour am toujours mention alors que yow da ngay liggéey di jàng en même temps alors que ñun jàng rek la ñuy def ñu am mention yow ngay am mention ma ne leen mais motivation yi moo wuute effectivement. doon def ba génn ci deux heures de cours par jour ñoom ñuy jàng temps plein. ah oui non c'est que nag dama amoon système parce que ku mel ni Boukounta Diallo par exemple Boukounta dama daan dem këram deux fois par semaine jël couram yépp photocopier ko parce que man daawuma def cours du jour donc moom couram yépp dama ko daan jël photocopie ko yëpp laa doon photocopier donc.

ah oui rigueur vous mettez ça, rigueur vous mettez, parce que c'était moi j'ai compris très tôt que n'y a que l'effort qui paye il faut se battre pour avoir du résultat donc nous, pendant quatre ans à maîtrise avec mention et tout barreau parce que c'était entre barreau et magistrature mais heureusement le def pour choisir barreau choisir barreau donc euh, en 1982 euh, la prêté serment man ak euh, avocat yu on était 35 une promotion promotion bu rëy la euh ba Yérim à l'époque bobu nekkagul won sax mu qu'on était venu prolétariser le barreau ah tellement on était nombreux il y avait les Adama Gueye il y avait les Malik Sall il y avait Amadou Sall il y avait Aissata et d'autres donc euh, nous la ñëw ci barreau bi nek ci Euh, ba ba léegi yàlla di ñu dimbale ñu nekk ci ba léegi. pourquoi nga choisir avocat au lieu de magistrat da jàpp ne boo nekkee avocat ci nga gën a mun a xëy na xeex injustice. waaw benn ñaareel bi aussi xam nga yàlla moo yore destin wu nit. man buggoon naa magistrature mais heureusement damay sant yàlla bi ma deful magistrature. parce que indépendance bi nekk ci métier avocat. indépendance parce que métier avocat mooy li ñuy wax les métiers à risque. tu es un travailleur non salarié amuloo salaire euh, euh, sécurité sociale amoo dara donc yo, ci sa liggéey ci ngay euh, tedd boo liggéeyee bu baax boo liggéeyee lu bare di nga ci génn Manam, do, do nek do riche mais dal di nga dund dund gu sell man nag dama mas ñaan yalla depuis toujours te yalla dafa ma ci dimbale Khalis bu lewul yalla bu mo aksi ci man loolu la masa ñaan yàlla te loolu la ma yàlla masa dimbale xaalis bu lewul soxlawu ko damay ñaan bu mu si ci man waaw donc euh, loolu la maa ngi sant yàlla maa ngi dund correctement euh, bon les apparences souvent sa trompe nit ñi dañuy defe ni yow mi kii man am na sax ñuy wax ni man milliardaire la ah suma doom yi di ma ko wax ma ne ko ma ne ko alhamdulilah maa ngi sant yàlla parce que sutura dafa am solo donc loolu non non non c'est-à-dire magistrature indépendance bi nga am en tant qu'avocat amuloo ko en tant que magistrature bon corruption nag ci métier yëpp corruption mon petit métier yëpp la euh, métier boo gis am na ci ñu jub ñoo xam ni mënu leen corrompre am na ci ñoo xam ne aussi dañ leen di corrompre dañu oyof waaw donc euh, loolu la ku nekk da nga am seuil de résistance dañ lay def ay propositions ñu doy waar mais am na seuil de résistance yoo xam ne boo ko amee di nga di nga résister bu surtout boo gëmee yàlla boo gëmee yàlla xam ne yow effort bi nga war a def yëpp def nga ko li si des nga bàyyi sa bopp ak yàlla yàlla moo la yore c'est tout waaw. alors après peut-être ce jaar-jaar ci wàllu profession avant loolu am na cursus sa njàng est-ce que yomboon na. alors sama nekk xale euh, euh, jafe woon na xam nga gone Grand Dakar boobu bu ne nee gone Grand Dakar euh, déjà ñun dañu dañu amoon turbulence bu ñu nekkee xale euh, dañu dañoo la jóg man d'ailleurs loolu tax suñu waa kër dañ ma yóbboon ca daara ja man ci daara laa nekkoon daara bi ma nekkoon mi ngi nekkoon euh, ci ginnaaw ñuy wooye Altu Sambé Sambé c'est dans la région de de Diourbel boru Gossas ak yooyu

parce que boo xuloog nit ba xuloo bi tàng rek bu la bu la bu la bu rek bettu la ñun nag bu xuloo bi masaan tàng da ngay dóor ba pare arrière daal ni sawaay est-ce que pare nga ñu noonu lañ daan <laughs> dox <laughs> da koy déstabiliser alors donc yóbbu ma sa daara ma def fa ñetti at ñetti at yu tàng façon dóor bu ne dóor ko dañ daan yelwaan dañuy dóor daan takk ak ay buum di leen dóor waaw. waaw li ñuy wax jéng tey dañ la daan takk dañ daan ay buum takk la mais nag dañ daan jàng dañ jàng dañ daan jàng guddi dañ daan jàng njël taal taal bu rëy ñu war ko di jàng ainsi vraiment daan jàng bu ñu xëyee bu ñu xëyee dem yelwaani wàccu ma woon kaamil bu mu bu xëyee dem yelwaani mais euh, daara ji aussi ma ma nekk fokk doy rek. turbulent rek. waaw mujj gi waa daara comme dañ ma yóbboon pour yar ma waa daara ja tële delloo ma samay waajur ni leen leen kaay jël si gonek nakaaru gi lañ ma daan wooyee gonek nakaaru gi ñu ne leen kaay leen jël si ko parce que kii mënuñu ko yore ñu jël si ma mu dugg école boobu maa ngi am ay euh, euh, six ans sept ans yooyu dama xawoon nak lah, jadi dugg école parce que neuf lah laa dugg école mereka suma rakk ñoo bokkoon classe d' loolu moo tax ma dugg école. Hmm. sinon kon na nga ni xëy na sëriñ daara lay doon wala mais daal loolu mbiri yàlla la <laughs> lah. donc eh, bi ma ñëwee aussi Dakar ñu dugal ma école eh, turbulence ba jóge wu foon. nga yóbbaale ko école mais comme dama néewoon doon école Bassam Goumba dañu amoon roq jinne boo xam bu ñu la daan ëffal euh, dañ leen daan tànc ci ñaari ñaari sorti la amoon gars yi dañuy baare sorti yi ngeen nekk ci biir foog ngeen xeex par force te kenn du leen atte voilà mais comme dama xawoon néew doole ma dem inscrire karaté ma demee inscrire karaté pour wut doole parce que dañ may duma rek dañ may tooñ ba pare di ma duma jaay ma doole ma dem wuti doole donc dem jàngi karaté mais ci yenn provoqué. à partir de quelle ceinture? marron à partir de ceinture marron bon nous on est devenu ceinture noire nous nous avons fait les premières compétitions de karaté au Sénégal ah. c'était en 73 moi la première compétition Bimadef, et j'ai été champion du Sénégal à ce moment de karaté la, première compétition qu'on a faite c'était à Mbour ce jour-là j'ai cassé une dent à quelqu'un qui est devenu mon dentiste plusieurs années après. Et j'ai été disqualifié ce jour-là. parce qu'on ne touchait pas au visage. C'était interdit de toucher au visage. Euh, le gars, je ne veux pas le citer, mais il avait une technicité, il avait des feintes. J'ai bien étudié ses feintes. Et quand il a voulu me faire le coup qu'il faisait aux gens, euh, il a rencontré ma, riposte et donc euh, j'ai touché le visage et voilà, ça a saigné, il est tombé à la renverse, il y avait du sang, j'ai été disqualifié. Donc lol. Mais euh, après on a continué et notre maître c'était Nunez, Fernand Nunez. Fernand Nunez qui est sixième dan, etc., qui a créé le Yokokai. Nous, on était au Lido avec lui. Et quand il a créé le Yukokai en 73, nous, nous sommes venus, on était déjà les anciens. On est venu ici au Yukokai avec lui, euh, avec les Lima, Lima Umberto, Lima José, euh, beaucoup de, gens, Gaston, Fourne, etc. Euh, il y avait aussi Mesa. Mensa, le fils du docteur Aristide Mensa. Euh, donc on était vraiment des gladiateurs, nous. Nous, quand on se promenait en ville, mais les gens étaient gentils, hein. on nous payait partout. Partout on entrait, les gens payaient. Ah Pour nous, ah on était... Ah, nous, on faisait de la haute compétition. On a fait la haute compétition avec l'équipe de France et tout. Euh, mais c'était du vrai karaté. C'est pas comme maintenant où les gens sautent, qui nous, quand tu tapes une fois, c'est pour mettre hors d'état de nuire ton adversaire. Si tu ne réussis pas au premier coup, pour toi, tu as échoué. Donc c'était un vrai compétiteur, nous on était à l'époque. Bon, et puis le temps a passé. ah non duñ la ñeme sax bu ñu xamee ni kii day def karaté kii nangam la am ñu gis la yenn compétition ngay def compétition Ken dootu sóor ñi la mag ak looloo la may Finalement, Lolo je suis devenu un pacifique. Ensuite, euh, euh, j'ai fait d'autres sports comme le handball, etc., des choses comme ça. Voilà. Mais, quand tu commences ça tu changé aussi sa caractère hein. Ah oui, oui, je suis devenu beaucoup plus calme. Tu n'oses plus taper sur les gens. tu n'oses plus taper sur les gens déjà si yenn da ngay fan pour le mettre hors d'état de nuire sans gagne donc tu cherches le plexus alors, ce cursus scolaire, Alors, cursus scolaire, j'ai été toujours euh, un élève brillant. Euh, j'ai même reçu un euh, cadeau au gouverneur du Sénégal à l'époque. C'était au palais, le palais présidentiel, c'était le palais du gouverneur à l'époque. On nous donnait des cadeaux, nous les meilleurs élèves, nous les meilleurs élèves, on donnait des cadeaux, je recevais des cadeaux, etc. Donc j'ai fait mon cursus normalement, mais dans autre école. de la fosse parce que dama dooroon benn prof. ñu dàq prof bi nag daf ma bañoon. da nga door sa ah ma bañoon. jigéen la malheureusement jigéen la woon à l'époque mais jigéenu tubaab la woon bu bu bu doy waar bañ ma daf ma bañoon. waaw ah, man kii bon daf ma provoqué ma pes donc euh, pes bu pes bu kii nag pes bu am solo. <laughs> ah daf ma daf ma bañoon daf ma singli woon rek. benn yoon mu provoqué ma ma dóor ko ñu passé mon conseil de discipline. dàq ma wax ma yaa ko def ma ne ko maa def parce que daf ma tooñ et cetera j'étais en seconde technique mathématique. Bon, après, ma débrouillé, continuer sur ma jungle, qui... Def, voilà, def comptabilité, def qui, après, de assurance, et ainsi de suite. Voilà comment ça s'était passé. Donc, moi, jeunesse de manière... Oui, oui, oui, oui riche. L'événement le plus marquant, c'est, bon, j'ai une famille, bon, une famille très riche, très soudée, entre un père, qui était talibé l'on, talibé mourit, Djambar, euh, parce que nous, sommes sur mon côté papa, nous dañu bokk directement la famille Serigne Touba

bu ñu daan dem ak mbokk yi dem seeti Serigne Saliou à l'époque euh, daf ñuy dalal ñu yendu fa mu kontaan daf daf ma daan wax wax na ma ñaari <laughs> yoon mu ne ma da ngay ñëw fii ñu daggal la fi eh, tool ak kër euh, ngay laaj addiya ma ne ko aw Mbàkke kay <laughs> loolu <laughs> la ko bàyyi am na ay jarbaat yoo xam ne Mbàkke lañ sant donc euh, am nañu benn événement familial bu ñu def at bu jot trois jours après euh, euh, tabaski donc euh, foofu ci village Fofu. Sur mon côté yaay waa kër xaali Amar Fall donc descendant direct de Amar Fall donc suma yaay mi ngi tout Fall Bayem c'est Khali. Khali, la tudd fal donc c'est une famille large donc c'est des familles religieuses y a eu marqué dans ma vie donc famille unie famille large boo xam ne vraiment ñëpp bëggante ñëpp benn lañu loolu moo ñu gën a marqué ci suñu jeunesse. man suñu kër déjà suma yaay dafa amoon ñaari sëram euh, Ami Fall ak Fari Fall euh, famille bi ni mu union ñoo bokkoon kër et tout famille bi ni mu union ba léegi doom yi ak sët yi lañ mel noonu lañ mel voilà chance bu rëy la dañ ciy sant yàlla nag parce que ci waay juree la woon alors euh, sa carrière euh, professionnelle ou sa carrière d'avocat euh, prête serment en 1982 alors là nous di ko premier dossier. ah mon premier dossier je demande dama maître de stage pour tout. Doudou Ndoye. jour bi ñu prêté serment le 16 juillet 1982 ñëpp di photo ak une famille qui le palais le c'est l'ancien palais de justice daf ma jox dossier ni man demal plaide yi jour bi fekk non seulement dama wooroon mais man jotu moon invité ku dul suma suma dooma ah. yóbbu moon sax suma famille parce que j'avais un dossier que je devais plaider donc ay photo cérémonie ak yooyu nit ñaa ngi ko doon def taluma ko ma dem audience correctionnelle ak sama dossier loolu mooy coup bu ma dund njëkk a def te neen da doon fayu parce que mon maître de stage am loolu la ko à l'époque te moom préparé won nga si non préparé préparé Je ne xamni pas tay nga tay nga prêter serment bon évidemment lire le dossier bi donc lire lancement le dossier ma ñëw prêter serment ba paré jubal audience correctionnelle j'étais à jeun ma toog fa le matin bon, 10 h 17 h may soog a parce que avocat ancien il ku ñëw rek day jaar plaider mo lay njëkk a plaider ñoom ñoo am priorité jusqu'à 17 h ci la plaider suma premier dossier muy dossier correctionnel en audience correctionnelle loolu moom xam nga yoy kenn du ko fàtte mais yalla daf ñu defal ñu am chance maître de stage bu melni Doudou Ndoye defe naa ni kenn gënuñu woon maître de stage. dossier boobu nga ko gagné gagné disons que suma client ma doon défendre moo doon prévenu deux mois avec sursis loolu mën nañ ni victoire Là. affaire bu garaaw non accident. accident bu xaw a mais quand même euh, accident la woon. waaw homicide involontaire donc euh, voilà deux mois avec sursis donc loolu chance la mais moom lo xamni li dang ko wara jang ci 1 mois mom en 2 jours daf la koy jàngal. dundoy euh, macha allah suñu chance mo doon mom parce que ku nek sa maître lim la jàngal bon xale avocat yi légui xeyna amuñu chance ñun biñu amone am ay vrai maître des grands maîtres yo xamni luñ la wax da ngay gaawantu bind ko man sama kay stage 1982 ba légui maa ngi ko yoré ci sama archive yi la bokk sama euh, disons que sama bu buñ doon wax ni tey euh, fii kii la euh, voilà qui souvent

saa yoo wax ak moom di nga jang ci droit lo xamni li lii newul ci livre yi donc dañ koy ñaanal euh, yalla defal ko gudd fan euh, ak wér mais vraiment c'est quelqu'un qui il est d'une générosité intellectuelle extraordinaire Et man dama gëm ni Afrique fi euh buñ doon wax ni le meilleur juriste en Afrique man dama naan la sans hésiter parce que non seulement de produire di def ay livre xam nañu revue EDGA dégg ngeen revue EDGA ah ay revue juridique la code yi yëpp moo koy defar gis nga code yu vert yi ngay gis yëpp moom la te dañuy da ciy maye nag da ciy may ay magistrats di ci may ay ay avocat c'est extraordinaire d'ailleurs la dernière promotion des avocats moom lañ ko tuddee il y a je crois une trentaine de jeunes avocats

il, il, prend note, il, voilà. donc c'est euh, lu mu publier wax dëgg y a du ci mën voilà c'est ça. Quel dossier moo la marqué dans sa carrière alors dossier est barré, mais bon vais ma ci cité du Il y avait le dossier de feu Babacar Sey. Bon moment, que gën marqué ci époque Ensuite, il y a eu le dossier de Imam Ndaw Imam, ndaw bo xamni bi dañ ko wax ni mom terroriste la ak ben dossier ben veuve bo xamni bi elle avait sept enfants je peux dire que dossier bo mo gëna important ci sama cabinet dossier bi ngi fi batay dossier bi war na mat trente ans xam dama xey gis ci journaux yi euh, ñu def ni amna ben jigen bo xamni bi dañ ko expulser

ci journal bi ma tal suma auto dem gis bagage ko ci biti euh, voisin yi euh, ramasse ñi ramasse ay bagage di len dencel euh, ci mbedd mi bi waaw ma ñu wax ma affaire ainsi de suite donc ma ci dossier boobu di défendre j'ai fait annuler la vente devant le tribunal ma annulé vente bi euh, ñu condamné kii ki nga xamni kër gi commencé transformer euh, nek ci kër gi pendant plus de 10 ans ñu yéeg ko wacc ba yalla dimbali ñu ñu gagné procès yépp ba ki nga ne ko bon ni na mais ñu expulsé waa kër gi ñu réintégré leen dugalaat leen ci seen kër loolu defe naa ni mooy dossier bi frais yëpp nag ñu ñoo ko kii parce que ngir yàlla ngir yàlla ah, amuñu dara wallaay ndeysaan mais euh, loolu victoire boobu victoire du ko gën a mag parce que injustice bu garaaw a garaaw la da ngay xool koo xam ne kii dafa faatu bàyyi njobootam ci këram ñu ñëw wanteer kër gi lu ñàkk solo trois millions et quelque xam nga loolu déjà kër goo xam ne gi euh, jaroon na peut-être quinze wala vingt millions à l'époque jaay ko trois millions et quelques xam naa nag dañuy joxe officiellement benn chiffre xëy na am lu jaar ci suufu taabal ji mais nijaayam ja ko jaayoon euh, finalement ñu attaqué leen ñoom ak ki jënd kër gi et tout on a fait annuler tout parce que njaay yi loon yoon et mais yàlla moo ci dimbale. à créer injustice donc Bobu dossier euh, bu ma gën marqué lool. dossier Babacar Sey, Babacar Sey, dafa nekkoon bàyyi ci man sur le plan spirituel Babacar Sey, bu ñu am audience au Grand Palais bu ñëwee daf ñuy dajale ñun jeune avocat yi di waxtaan ak ñun di ñu di ñu wax àddina di ñu man on était très proche man ak moom moo tax biñ ko boomee affaire dafa ma métti woon ba nga xamné j'ai dit il faut ma xam lan mo xew dans ce dossier man m'a don avocat modisi modisi qui était député nekk ci PDS après la nékat avocat Ablaye Wade ak Viviane mais man modisi ak Samuel Sar ñom la don défendre au départ modisi ñu torturer ko ñu jàpp ko gendarmerie torturer ko ma porte plainte parce que torture bi dafa y baye ay séquelles kanam gi nawi ainsi de suite ma porte plainte contre la gendarmerie yalla def d'habitude yu mel non bo porté plainte contre gendarmerie enquête bi police lañ koy jox plainte contre police enquête bi ñu jox ko gendarmerie mais dans cette affaire là enquête bi gendarmerie ci bopom lañ ko jox alors que man plainte c'était dirigée contre les tortures et ñu defoon sama client mais heureusement mu a des officiers de gendarmerie des hauts officiers vraiment c'était des hommes d'honneur Nous sommes tase prison bi ñu maître soyez tranquille parce que les am ci dossier bi ñun Nous ko leeral te nañ ko waxee woon noonu lañ ko ci découvrir que avant ñuy faire Babacar Karsé. il y avait déjà des équipes d'enquête qui étaient préparées dara c'est une affaire préparée. c'est une affaire qui était préméditée préparée c'est pourquoi nous avons wax ñoom Clédor c'est ak ñoom kii ñoom ñu ñeneen ño réellement ci qui bi et que ñom dañ leen utiliser pour monter un scénario nangam nangam des trucs comme ça. en tous les cas il y a des points obscurs encore dans cette affaire mais li wóor moy ray nañ ko boom nañ ko té mérité wu ko parce que mon demul won fofu pour wut khalis bi mu jógee ci métier avocat bi ñu nommé ko magistrature vice-président du conseil constitutionnel doon pour khalis mais pour rendre service réewam mo taxone mu def ko nek mak mu am diiné mak mu bax ci ñep man sama waajur bu gor bi mu faato joyuma mais Babacar Seye bi ñu dem souli ko Ndar Càkka dañ ko suul ba pare ñëpp dem man ma toog fa munu ma woon dem ko suuloon à côté de ses frères nekk ay bàmmeel yoo xam ni vraiment c'était parce que ñoom c'était des grands hommes j'étais l'un des derniers à quitter là-bas sinon le dernier dama toog foofu je pouvais pas retenir mes larmes j'ai pleuré pleuré pleuré mais dama ñaan yàlla ma ne ki def lii yàlla na ko yàlla feeñal yàlla na ko yàlla weer c'était un crime politique problème les commanditaires en tout cas c'était des hommes politiques je ne sais pas si c'était du mais lui gens mooy du accusé parce que li plainte mon Mon déclenché une enquête gendarmerie il y avait un coup monté il y avait des préparatifs ñi waron dem Japi Ousmane Gom ñi waron dem siège PDS ainsi de suite il y avait des équipes d'enquête qui étaient préparées et mobilisées ni jëli wakam Wakaam jëli waa Foire jëli Fi, ainsi de suite préparer l'un déjà te médecin teewagul voilà et ensuite le trajet avec les déclarations du chauffeur naka la tirer euh, fii ci wetu musée dynamite corniche bi foofu yow chauffeur bi nga ne dama koy yóbbu hôpital nga ne yaa ngi jaar devant l'université c'est-à-dire temps yooyu moom daf ni dafa jaar ci koñu Fann ma mooy mooy koñ bi am mosquée bi am morgue bi nee na foofu la jaar jaar devant l'hôpital fan continuer dem ay medina wax yoon bo xamni ne bi daal bi ñu reconstituer les faits gis nañ ni ki waxul deug ndax dafa gudd trop. non dafa goudou trop et puis yow nak ngay rombee hôpital fan nan ya ngay dem principal. da nga ko xamni ne mu ngi ci diggante. waaw xam nga lolu ak ben ak pneu bo xamni bi dafa toj. ben pneu bu père pneu bu père waaw alors ay affaire yo xamni et quand le ministre de l'intérieur est venu moom moo génne bal bi ni bal bi lañu tirer c'était qui à l'époque Mais c'était. Euh, est-ce que Doumbadjang Kharidjang, je crois, des choses comme ça. Et ensuite, histoire autopsie bi d'ailleurs il le am ni expert balistique à l'époque euh, mais bi ñu waxee ni dañu def autopsie man m'a découvert que l'autopsie, mais autopsie bi amul parce que médecin touba bi ni woon moment de def autopsie bi dafa ndax heure bi mu ni moom la def autopsie fekk na kooru Babacar Sey ñu jël ko ba di ko yóbbu ndar mu ne moom ci moment boobu la def autopsie donc daf fen ensuite a naa certificat genre de mort parce que biñ ko interrogé à la barre on l'a confondu on a montré que non seulement il a menti mais heure bu mu waxoon ni il n'y avait pas d'autopsie parce que le corps était sur la route de Saint-Louis donc il y a des points troubles tels que, bon, les claireurs, quand ils ont été condamnés, ils ont nié. ils ont tiré mais ils ont tiré euh, mais que Babacar avait déjà été tué et mis dans la voiture Ils ont intervenu intervenir du jouer ce scénario ils ont fait rey nañ ko gars yi na ñu ko reyee keur xawma ma nangam nangam des trucs comme ça ba pare duggal corps bi ci ci ci ci bi mais kan xamul donc il y a eu beaucoup de mensonges qu'on a découvert après et qui ont permis de dire que li du ñoom Ablaye parce que mënuñu woon def lool il y avait eu des préparatifs voilà il y avait des préparatifs waaw donc euh, lool la dossier bobu dossier mo marqué loolu mais dossier imam euh, euh, ndaw boobu aussi dossier bu graw la boo xam dafa marqué parce que ci lañu ont découvrir que ni muy gendarmerie muy police dañu inventé inventé des faits je dis bien inventé des faits attribué ko imam Ndaw ak ñi mu àndaloon inventé dara du ci dëgg xam nga boo ne nit terroriste la je donne benn exemple ñu ñëw fekk ko këram Kaolack dajji dugg jàpp ko menotté jël ay téere alxuraanam ak ay téere fiqam ak jël yëpp indi ko Dakar ñu wax ci enquête de gendarmerie ak yu police que mom dafa am tool yoo xam moo doon servir de camp d'entraînement aux djihadistes yi nga xam ne dañuy dem euh, Nigéria ak ay kiir yooyu ak ñi nga xam ne dañ jóge foofu ñëw mais xanaa li gën a tuuti mooy da nga dem ca tool ba pour xool ay traces ay équipement wala ay di nga di nga fa fekk ay équipement yoo xam ni waaw ay équipement d'entraînement defuñu ko ils n'ont pas fait de dans les champs ba euh, ba juge d'instruction bi ñëwee aussi moom it defu ko deful enquête deful enquête donc on a découvert tellement de mensonges et on a vu que tubaab yi ñoo newoon ci ginnaaw enquête bi mais ba ñu gisee ni lii ay terroristes newuñu fi am na ñoo xam ni demoon nañu Nigéria ci ñeneen ñi am na ci ñoo xam ne ñi deux ou trois yoo xam ni euh, ñoom Imam Ndao mais ñi ci ëpp dañ na naan man de ci ci dégg-dégg rek laa ko xamee. waaw yow fekkee nga procès bi donc euh, on a le dossier il y a une centaine de pages de jugement. ah en tout cas France ak Amérique yëpp newoon nañ ci dossier bi ñëw nañ sax xool dossier bi. Amérique yebal nañu ay nit ñu ñëw demander autorisation ñu autoriser leen ñu xool dossier bi. Parce que la lutte contre euh, les djihadistes, les terroristes, lutte internationale. Donc, il y a des gens même qui ont dit qu'ils ont financé des opérations d'enquête et tout ça là. en tout cas nous ont filmé qui est qui mais li wóor c'est que nous ba parce que chance bi juges, juge ya nga cinq juges nous avons chambre criminelle bobo amna ben imam bu ci nek bo xamni bi mom euh téré buñu gis ni ki woy téré propagande euh, djihadiste nangam nangam mom mo len di wax téré bi li ci ne juge bob. mu am ci biir ko xamni ki c'est un chrétien juge le mais c'est un chrétien bu xamni bi bu mandu la yalla def euh tribunal bobu ñom bañu analyser lepp vidéo yeeg qui est lépp rédiger seen jugement jugement bo xamni ne bi macha allah xamou xamul mu détaillé lépp lañ détaillé surprise générale le lañ détaillé parce que mais c'est là où il faut dire que le rôle de la presse n'a pas été euh, très professionnel pas du tout parce que ay photo lañ don lañ don publier lo xamni lu ñu la wax rek photo imam Ndao la ñuy

lu ne daal yàlla na ko yàlla yërëm mais nit ku doy waar a ngoog parce que imam Ndaw intellectuel la jàngkat la gëstukat la woon moo tax mu bari woon ay livre te bu waxee ku ko déglu di nga xam ni kii du terroriste au contraire buñ nekkoon ci dëkk boo xam ne bi dëkk bu développé la comme ay France ay yeneen dëkk dañuy jël ñu mel ni imam Ndaw indi leen ci xale yi bugg a nekk dem ay kii yu mel noonu pour mu xutba leen pour mu waar leen pour ñu bàyyi moom loolu la doon def. ku amoon njëriñ la ci réew mi. ku amoon njëriñ la ci réew nit la koo xam ne kii da doon dissuader da doon expliquer nit ñi jihadiste yi li ñuy def et tout xam ne day woon ni ci ay erreur la ñu nekk. y a des yoo xam ne jotoon nañu dem mais ñoom bi ñu demee ñoom dañu demoon pour jàngale ji mais bi ñu demee gis ay ñoo xam ne ay reykatu nit la ñoo ñu mel noonu. dañu naxante ba rëcc parce que bu ñu xamoon ni dañuy dellu dañ leen di rey dañu naxante ba rëcc ñibbisi bi ñuy ñibbisi lañ leen jàpp bi ñuy ñibbisi lañ leen jàpp et ils ont expliqué ba mu leer que ni ñii duñu ay jihadiste am na ci peut-être ñaar wala ñett yoo xam ni jotoon nañu àgg ba gars yi joxoon leen ay arm ba ñu gis affaire yi ñu daw ñoom dañu daw am na ñoo xam jotuñu dem.

mais mais xale bu jigéen bi may wax euh, dossier bi xam nañ turam jabaru kenn la woon ci ñi nga xam ne euh, moom ñoom la ñuy wax jihadis ñoom ñoom ñu jàpp leen donc kooku bi ñuy dem di ko jëli seen koñ ci kër parents yi dañu traumatiser ñëpp parce que dañu mel ni kuy jëli euh, koo xam ni kii reykatu nit la guerrier la boo xam ni bii dafa armé il est dangereux ay kenn xamul

ak ni mu doon yeete boo doon déglu xutba mi fi mu nekk boo duggoon ci internet nga xool xutba mi nga déglu ko nga xam ni nitu yàlla mooy wax ko xam ni ki affaire violence ak yooyu wax ci dara mais il a un un discours critique day analyser moom documenté wu fii wax ci affaire u euh, euh, ñi ñuy wax ay euh, kii loge yeeg maçonnique yeeg affaire yooyu yëpp daf leen di jàng analyser leen wax ci te lim ciy wax lu documenté la lu leer la vraiment nit kooku amoon na njëriñ ci réew mi yàlla ko yàlla yërëm euh, te wutu ko si njabootam lu mu xamoon mooy jàng alxuraan ak ay tool jàng bay jàngale bay. waaw jërëjëf maître ci maître boobu ci sa carrière ak dossier yi ñu ñëw nag ci léegi maître homme politique def nga mais bala ñuy dugg ci loolu dañuy dem xooli seede kenn koo xam ni jëflante ngeen ci wàllu droit parce que nekkoon nga avocat wam mais aussi euh, xëy na takke ngeen ci wàllu politique kon ñu xool témoignage boobu daal di def si waxtaan bi. waaw demande ma li may ci ma apporter ay. seede ci ma soxna kan dina yomb du yomb parce que mémoire ngay waxe te lu ma bett la aussi mais am na lu ma xam ci moom parce que am na aw nañu ay ci ay yoon yu bari yu wuute nga xam ne ànd naa ko ak moom li ma mën a jàpp daal ci moom mooy d'abord nga jàpp ne Euh, nitu politique la pour engager ci parce que dugg ci politique il faut nga am courage pour def ko euh, politique nekk euh, parti démocratique sénégalais ci moment yi nga adhéré aussi section booba temps tuddul section communale mais Anne mu ngi bokkoon ci fédération wu troisième fédération bi nga xam mom moko moo ak Grand Dakar ak ñaari tali ak HLM ak Dieuppeul Derklé té lolu mo don ci Sénégal bokkoon na ci fédération bi nga xam mo moo gënoon rëy ci fédération yi mo ci gënoon dynamique. procès yu bari ci procès Sonko yi euh, bokk na ci mu nek avocat bu bu mën bopam bu am xam-xam bu am yar bu am teggin aussi bu élégant. parce que loolu avocat yi aussi lu luñ ci luñ ci lu ci ñenn ñi di seet la alors euh, liggéey nañu ci ay dossiers yu rey man marqué na ma trop ci dossiers yi nga xam ne liggéey naa ko ak moom ci awokaay yi ma dajal Massokhna Kane Doudou Ndoye Aïssata Tall marqué nañ ma ci seen liggéey parce que dama am ay dossiers yu mag ak ñoom ñu yóbbu ko ci situation boo xam ne bi li ma ci bëggoon am naa ko

am nañu nak ay relation particulière parce que ko am yar la ko am teggine la ko am ité ci man la té man na wax né fiñu tollu ni ko am ité ci li PDS di def la ko am ité ci soxla Abdoulaye Adou la ma soxna ko am ité ci fi Karim Wad jëm la lolu mom man na ko sédé ci suma digënté ak mom parce que amna lu bari lo xamni waxtaané nañ ko

foo xam ne fi ñu bari ñemewuñ ko fa wax loolu moom lañ koy seedeel euh, di ko ñaanal nag gudd fan ak wér mag mu am njëriñ la ci réew mi te defe naa ni buñ ko doon faral di déglu am na yu bare yoo xam ni euh, xëy na euh, réew mi dana ci mucc en tout cas ñu ngi koy ñaanal moom xam na fiñ ko féete cofeel bi ñu am ci mom ak respect té bu fekkone ne melul nenn ni loolu xëy du démé non wala duñ ko ko manifester donc suñu mag la suñu mag la euh, notable si réew mi nit ku baax la vraiment dañ koy ñaanal gudd fan ak wér wax yi mu wax ci man nag baaxam moo tax mu wax ko ci man mais euh, voilà maa ngi koy sant bu baax bu gërëm di ko ñaanal

mu créé Burkina Mali Côte d'Ivoire Niger euh, même euh, Guinée-Bissau et Sénégal Sénégal a Sénégal, a lu centres de Dakar et des centres ci région euh, souvent da nga lire le Coran en trois mois effectivement dañu jàngal des règles fiqh des règles tajwid yi Euh, boo yoree téere alxuraan fu la neex ubbi mën a liir te loolu lu jafe woon la parce que depuis plus de trente ans da ngay wut oustaz bu lay jàngal ci sa kër di jàngal say doom di nga xam ay saar par cœur mais doo mën a liir alxuraan liir bu normal loolu nag ci sifon nañ koy jàng yàlla def na jàng nañ ba am ci lijaasa sa mais arrêté wuñu fi mu nekk tafsir la ñuy def euh, ak euh, ay recherche Euh, moo tax ñu créé ben association bu tudd asifone association des apprenants du euh man la yalla def ñu jital ma ci man maay président bi donc ñun fuñu toll dañuy jang alcorane té dañuy jang di ñaan yalla mokal ko te di ko parce que nit amul lu dul diine gis mu am doolé fi rek euh dafa nek ci diiné parce que diiné moy doolé nit dëggantaan waaw lolu Euh, am tawhid am diine wax dëgg yàlla koo fi gis mu nekk nit ku baax nit ku tekki boo ko gëstoo rek jàng na alquran. kon mun nañ waaw ñun suñu njaboot yëpp euh, dañ dañ leen ci puus ñi fi ñi nekk Ndakaaru ñi nekk fenn ñëpp dañu gis ndaal njàng alquran bi moom day tax yàlla barkeel nit. day tax nit gën a ragal yàlla gën a bëgg jaamu yàlla fi mu nekk foo mënti dem màkk ak fu nekk fu la neex boo demee ku ubbi téere alxuraan di jàng nga ubbi yooyu itam di jàng te loolu chance bu rëy la donc dañuy euh, wax nit ñi nañu jéem a ki itam euh, jéem a am njëriñ pour askan wi loolu mooy suñu yitte suba ak ngoon nag te métier bi daf ñu ko yombalal métier avocat daf ñu ko yombalal ensuite défendre consommateur aussi aussi on a un droit day a parce que nous ci texte pour défendre ay il faut nga documenter il faut que xam les donc l'eau aussi nous qui ci jéem Nous ñu mën ñu ngi jéem euh, di wax ni euh, mais dañuy ñaan euh, dirigeants yi et surtout dirigeants yi di wax nit ñi wax nit ñi dëgg parce que lool moo moy moy dafa melni moy problème Sénégal wax dëgg foo ko seet nag même ci société nationale yi ak yoyu duñ la wax mukk li ci ne té lool baxul lool non seulement nax nit ñi la trahir euh, nit ñi la mais day tax kenn dootu la wolu lool moy indi té itam li ngay li ngay def du mën barkel parce que mënoo diriger té tegoo ko ci deug donc ce que vous ci Sénégal lo euh, lu en tout cas bu fi wul ba setit lu lu wara a la waaw dañuy wax importance ci kër ci gox ci parce que réew kër gu la rek règle yi doxal kër doxal borom kër exemple borom kër day sanctionner positivement ak négativement

Euh, di ñaan yàlla mu dooleel ñu ci te barkeel li ñuy def donc loolu waaw moo indi SOS consommateur euh, moo tax euh, moom la gën top toppatoo que aspect politique bi disons que bàyyi bi mooy ñeneen ñoo yore affaire u parti bi union des forces patriotiques yeneen i cadre ñoo ko yore ñu ngi exi bien sûr ñu ngi existé ba léegi te bu ci kanamee sax euh, dana SOS chapeau SOS bi dana xaw bër tuuti ñu jàpp ci chapeau vraiment homme politique bi parce que moment bi daf ko laaj bu ñu demee ba ci kanam bu ñu demee fii ay fan fii ay kii di ngeen gis ma yëngutuwaat tuuti ci politique bi parce que daf ko laaj moment bi moo ko laaj bu ñu paree bu ñu passé waaw oui effectivement looloo tax may wax donc euh, il faut ñu bay ci suñu suñu war euh, bu ñu ci joggé nak ba yépp euh, jaar ci yoon bi nga xamni mom lañu ñaan euh, yalla def mu am fi su boba ñu déluat jël suñu problème consommateur jën ko gëna topato taxul nak han ah? am candidat wees am nañ candidat te su jotee nit ñi dinañ xam ban candidat la ñu jàppale incha allah. yàggatul dara yàggatul dara léegi tey ngeen am ci lu leer leer incha allah waaw loolu moom promesse la. d'accord su ma jaar-jaar ci politique man man bëgguma woon def politique. j'étais avocat juriste j'étais avocat de Ablaye Wade et tout. d'ailleurs Devlanor Massorna, c'est un homme de dossier donc dama défends défendre ablad parce que je dama suis conviction que dañ une doon injustice yu bare notamment une diffamation un procès en diffamation ablad va dire, presque ma def Je suis un Cheikh de Ba aussi euh, donc je dama daan défendre ablad toujours Et Ablaye da daan wax nit bon je ma ma mais il y avait des gens ils xam ni yu ko daan sosal ay sos diffamation procès en diffamation les gens étaient condamnés mais bu ñu demee ba bëgg a exécuter décision bi daf des di donc Ablaye nit ku baax la woon nit ku mag mu baax la woon ku daan consulter la aussi mais man bokkuma woon ci partem man Ousmane Ngom moo doon suma rakk chaque fois daf ma daan wax kaay ci parti bi ma ne ko jox ma seen programme boo programme bi si je suis convaincu je viens alors nous, doxal nous ba jour est-ce que destin pour l'Afrique Je non nous, effectivement mais dama ko abal nit ma dit. abal ma dit samedi ni ma quatre un destin pour l'Afrique ma commencé à lire avant may pare ma dem siège du PDS ni dama adhérer parce que dama gis Ablaye approche bi homme politique bu ko parce que mon lu critiqué, daan critiquer day proposer solution à côté donc démarche boobu moment euh, moom la retenir woon ci moom da daan critiquer mais vous critiquer la dette vous critiquer lii ainsi de suite da proposer des solutions. Mais ma demee siège u PDS ñu ne nous avons fait man leen aan la dëkk ñu avons fait demal kër euh, góor gi euh, Dia donc mon moo responsable Fofu, ma dem adhéré Ablaye yëg ko kontaan ci lool may ma livre yu bare ñu dugal ma bureau politique dugal ma comité euh, secrétariat national et cetera et cetera donc mu commencé militer euh, mais. ban année nga militer. Euh, yàgg na c'était ay yàgg na nag xaw na yàgg mais ay années quatre-vingt ay années donc. Euh, ma le secrétariat national tout ça là chargé de lii ah, ainsi de suite euh, donc je continue Je ba dans le gouvernement en 92 euh, du moins 95 dama tok goudi 2 heures du matin tu peux venir je ko bon on va au gouvernement tu dama bëgg ministre est-ce que nga j'ai bien réfléchi. voilà donc c'était dans le gouvernement de Diouf dirigé par euh, euh, Abib Thiam qui était un homme remarquable pour qui j'avais beaucoup d'affection et beaucoup de considération parce que ministre yu dañ alors que non seulement c'était un ami fidèle de Diouf mais c'était un vrai administrateur alxuraan non parce que daan nañ ànd ay mission ci avion bi day génne alxuraanam di jàng donc euh, yalla na yalla yàlla ti te ko c'était un homme formidable donc euh, ma nek ministre pendant trois ans donc euh, mais vraiment c'était très très intéressant abla def ma daan wax toujours man li regretter moy euh, tu as cassé ton cabinet pour qui Mais je suis au service de mon pays. Tu m'as donné l'occasion d'être au service de mon pays. Et nous, le Conseil des ministres, nous de l'opposition qui était là-bas, ça a eu ministre da ngay ministre bu dans li ngay wax parce que boo waxee dit que loo xam ne amul dañuy taxaw ni la ah que kat amul démontrer que ni lii amul donc il y ministre yoo même même un département des fois bu ci daan wax ñoom parce que parce y avait l'opposition qui était là donc mon une expérience riche en 98 après en 99 il a démissionné dem appelé mon grand frère Moustapha Nias, Il a dit « Moustapha ñun man m'a créer parti pour soutenir sa candidature à la présidentielle Lolo taxoon ma démissionné PDS Puis ma démissionné vraiment de en fait métti woon de mais j'avais fait un choix j'avais choisi de soutenir un ami en faisant comme euh, le RDR avait fait pour euh, al Ouattara c'est-à-dire créer un parti pour soutenir la candidature de Moussa tant Tant eu d'ailleurs euh, les Ousmane Gom ils ma critiqué critiquer il a un langage truc fait que ma démissionné à moo nañ ko garder secret bu ko kenn yëg parce que moi j'ai été nommé médiateur du parti du PDS man maa suis dox pour que ñoom Ousmane Ngom ñoom Jean-Paul Diaz dellu dans le PDS donc bu ñu déggee may soutenir candidature Moustapha Niass les journalistes me demandaient j'ai dit bu jotee dinaa wax effectivement ba mu on a créé un mouvement de soutien à la candidature de Moustapha Niass ci loolu la ñu jóge mu def déclaration le 16 juin ñu dàq ko PS ci la ñu créé AFP AFP man ak Moustapha Niass ñun ñoko ko initié te loolu mom ñoom ñep xam nañ ñi ñëw après ñom ma jeyna et tout ça ñom suñu grand frère la ñu woon ñoom dañu bëggoon créer ce qu'ils appellent la Pléiade bo xamni dañ fay nek di étudier ay ki man nak j'ai dit moi je suis un homme politique je crée un parti pour soutenir la candidature de Moustapha ci lañu créer AFP mais deux ans après, bon, Moustapha c'est mon grand frère, mais on n'avait pas les mêmes visions politiques. J'ai démissionné et je suis parti créer euh, l'Union des forces patriotiques. Mais quand je suis mi créer parti à mon dolé aussi pour financer tes activités bon j'ai préféré mettre de parti un peu euh, avec les autres responsables créer loo xam mën ci SOS consommateur donc loolu histoire bi histoire puis voilà la politique alors mais ñu jeexalee foogoon naa ni sank bu ma la laajee di ko wax moy dossier aussi la marqué yaa ngi tey ci dossier Ousmane Sonko duñ dugg dans les détails parce que xamna né ne loolu ko def mais lan mo la marqué ci Ousmane Sonko lan mo la marqué aussi ci dossier bi bi ci nekkee ba tay non li ma marqué ci Ousmane Sonko moy euh, depuis plusieurs années depuis 2021 il est persécuté lu nekk

vous êtes mieux placé que quiconque pour xam liñ ko préparé ñun sur le plan euh, juridique et judiciaire on mène le combat te gis nañ ba légui yalla mi ñuy may ndam luñu ko mënti fexel aussi fi muy muju moy day muju lèr yalla ay muju lèr lépp donc ce monsieur là vraiment euh dañu gëm ni yalla dafa ànd ak moom dañu gëm ni euh, nit ku bax la nit ku mëna am njëriñ ci réew mi la nañ ko bàyyi mu bokk comme ñëpp compétir parce que kii nekk président ëllëg yàlla moo ko xam yàlla moo ko xam mais le fait que ñu koy xeex pour mu bañ a bokk ay CDC ay euh, euh, DG e. e, yooyu yooyu dafa ñaaw te tôt ou tard l'histoire retiendra cela loolu dafa ñaaw te warul am ci réew nañ ko bàyyi ko moroomam yëpp ñëpp bokk ñëpp bokk ku gagné ñu xam ni yàlla moo ko yàlla moo ko tudd. réew mi am jàmm waaw. jëmmi Ousmane Sonko lu la ci man euh, quand mag laa léegi non seulement damay seetlu di déglu mais damay am ay yëg-yëg te gëm naa ni gone gi yàllaa ko defar ba mu mel ni mu mel ni mu mel ku ko gis ku ko jege xam ko découvrir ko. di nga gis que ni ku jub la ku am diine la ku bëgg réewam la ku sacrifier boppam pour réewam la donc loolu dañ ko ko war a nangul ñun dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal euh, mu nekk président prochain président wu Sénégal te mu gën ci Sénégal gën ci njabootam gën ci moom loolu la ñuy ñaan parce que gëm nañ ni njiit bu mel ni moom bu ko Sénégal amee bu ñu doxalee tuuti le ah, Sénégal dana am euh, euh, actuellement parce que li fi actuellement ñëpp xam ñi wax dëgg euh, du ñu fi def effort ba yem fi mais daal fi nga xam ne daal la ñu ci affaire droit de l'homme ak respect démocratie loolu ko parce que nous avons yi ñuy posé lépp gis nga bërki ñu wax premier ministre ay déplacement d'information Bon, nga gis ay ministre yuy dem ay Mali di dem fenen nan ay rencontre d'information yooyu euh, c'est de la politique déguisée campagne déguisée la Ken doful yep xam nañ ko donc avons arrêté affaire il faut combattre à la loyale Nous l'ol nous ñu combat C'est adversaire tu le combats loyalement en le respectant, en lui donnant la considération, mais tu le combats loyalement pour le vaincre, mais à la loyale. Lol mo rafet té lol la ñaan vraiment ñi fi nek jéem def Nous jafé na ci ñom nak parce que dañu yaakaar ni xeyna peut-être un sondage mo leen may ni que ki bu bokkee du bax ci ñoom nak yalla nako ci yalla bolé yalla voilà c'est tout.

y a le ko de comprendre faire en sorte que la paix demeure voilà. merci à vous.